salaamaaleykum cher internet de Guédiawaye info point com ñu ngi leen nuyu donc euh, di rafetlu seen ici dans l'émission émission Artist. artiste tey jii nii ñu ngi ni Paris C'est si benn ndaanaan benn Boy boo depuis 2015 le commencé carrière am donc mu ngi fii Guédiawaye di évoluer donc ñu ñëw seet si ko Ashlem Paris ñu koy wax Bandi Galle Bandi Galle salaamaaleykum. waaleykum waaw Bandi Gallé gannaaw buñ la nuyoo xam nga di rafetlu accueil bi ak euh, sa gàlle biñ la fekk fii donc sama première question mooy tey euh, suñu cher internet yi nga xam ne xamuñu Bandi Gallé kan mooy Bandi Gallé. salaamaaleykum Mbaye maa lay bon di nuyu aussi internet yi indil ma teewal <laughs> di nuyu aussi internet Guédiawaye info yëpp xam nga di leen wax ne yéen a ngi nii HLM Paris Guédiawaye am artiste bu tudd Bandi Gallé bon. Bandi Gallé pour résumer mooy benn artiste boo xamante ne nii mi ngi commencé carrière am 2015 nekkoon ci benn quartier bu tudd Jiwe Street mu ngi woon foofu noonu côté Wakinaan bi après par la suite si laa def benn benn benn son bu tudd Just mi après booboo nekkoon sama première son solo quoi après nag ci laa commencé di évoluer ba nii après ci laa génnee sama benn maxi 6 mars dernier bi maxi bu tudd Lance Pierre xam nga mi ngi am cinq titres. loolu me moy résumé aussi tamit def nañ concert collabo def nañ concert def nañ ko hip hop staff def concert tamit ak ben, un Wafo events euh, si si si décembre 2018 bon ay concert collabo la quoi bon, showcase mais bon ben ça wax deug yalla pour business et tout ak suñu label Cisco Production fofu represent. Euh, ok Bandigal gis nañ présentation bi on sait que ne c'est pas facile d'être un jeune que dans le milieu hip hop donc aussi il y a ci cartel man dama bëggoon xam qu'est-ce qui s'est passé ba nga ba pour jouer ce cartel bi dem en carrière solo. ah non cartel bi nekkul woon newul amul amul amul ah, amul faille. xam rek dañoo demoon ba tollu benn instant boo xamanteni ni ku si nekk da ngay sentir sa bopp sentir sa wëy aussi après affaire yi claté bi mu na ay crew amoon na tamit ay carrière solo comme man dama mës a carrière solo mais cartel du groupe quoi tu vois donc ba mu claté ba mu explosé ku da nga flow sa wëy mais ñun ñëpp ba tey dañuy ànd parce que ñun ñëpp presque ñoo bokk fu ñuy fu ñuy kiiwee quoi fu ñuy prisé maanaam Cisco production bien vrai que nak man eh, eh, artiste bu valable la fofu mais gars yi ba léegi am nañ link yu nice affaire yoon amul ben problème quoi sama frère lañ quoi ma len di saluer de passage euh, léegi tay jii ni nga si cartel on sait que na cartel groupe la euh, ak euh, nga ñew entamé sa carrière solo léegi entre cartel bi nga lon jobé groupe bi ak yow nga xamné yow individuellement instant bi yow ya job ban différence la am ak est-ce que c'est difficile wala grawul quoi moy transition boobu. Mm-hmm. yeah amna amna différence parce que ko xamné ko xam ko ay groupe mom crew day am différence toujours ak yow yow en personne parce que des fois da ngay am sa ben idée bu ko développer xam nga à ta façon à ta manière mais bon ni ngay gisee du non la sa morom di gisee tu vois donc tay cartel ak carrière solo wax deug yalla is not the same du ben quoi moo tax tey da ngay gën a firi gën a happy boo nekkee ci carrière solo affaire yooyu noonu bien vrai que nag travail groupe neex na trop neex na trop trop trop mais tey li nga mën a li nga mën a def yow kese mënoo ko def mënoo ko def à 100 pour cent ak ak ak ak cartel bi quoi wax dëgg yàlla. waaw man sama beneen question mooy on sait que jeune nga xale bu tuuti nga donc est-ce que cartel dafay am beneen activité bu muy def wala il fait juste du rap quoi bon cartel bi ma bokon, ñom ñom ñogi don ñogi don ñogi don tek pour genre ay sayfa ak tamit ak ay concert affaire yoy noonu mais mujjul sorti quoi parce que cartel boo xoolee duréwul sax 2015 2016 un an kese la def quoi duréwul on a juste fait deux sons mais bon ñogi don programme ay affaire yu bëri bëri mais yalla def nañ ni tamit mujjul sorti quoi donc dañ ko sabab lool mais comme ko yalla tuddu ko tamit alhamdulilah tay tamit bandi mo ngi fi keneen ak keneen mo ngi won ci cartel bi ñom tamit ku ci nekk yaangi paré pour tek man aussi ma ngi paré pour tek sama yow en tant que jeune la wax est ce que yaangi def benen activité bu dul rabbi si si carrément bon je suis étudiant en génie informatique bon aussi tamit euh, amna yenen ay business yo xamantene ne tamit mu ngi ci souf ma ngoy ma ngoy def koy Euh, waaw waaw sama beneen kii pour internet yi nga xam ne xamuñu la mm. d'où vient le nom Bandigal? Bandigal. tey boo ma ko doon définir lan mooy philosophie bi. yeah avant tout bon man la parce que man dama nekk nit koo xamante ne genre dama yàgg toog ci sama rëkku cour quoi mais su ma nekkee ak samay copains samay gaayan dañuy dañuy dañuy def lu ñu neex quoi xam dañuy def lu ñu neex xam nga mais philosophie Bandigaale bi bandi juridiquement mooy criminel criminel boobu noonu mën naa tuddee tey rapport bu nekk criminel nga parce que dañ lay jox instrumental vierge nga kiil ko nga kiil ko ak ay rhyme ak ay vibes ak ay technique ak excluse quoi tu donc loolu laay tuddee bandi gaale nag moom laa tuddee àdduna quoi parce que àdduna tey dafa doon benn géew boo xamante ne nii nit ku nekk war nga fi mën a fonde famille fa nga mën a dem comme tey ni ngay ñëwee nii waxtaan ak ñun boo toogoon ci mbedd bi boo toogoon tamit ñi fa nekk mën nga toog ak ñoom créer fa benn benn benn benn benn benn benn benn famille boo xamante ne da ngeen di nice loolu noonu après mooy def gaale pour man pour man famille mooy def gaale quoi maanaam entente bi fraternité bi quoi loolu mooy def gaale donc man loolu laa tuddee gaale quoi aussi tamit ku si nekk xam na ni game ci mbedd la juddoo mais dem na ba benn instant boo xamante ne gars yi ci biir gaale bi dañ koy cons paagement dañuy cons sa sound keneen ak keneen koo xamante ne tey rab musu ko intéressé mais da koy conse parce que dañuy développer ay thèmes yu intéressant de telle sorte que ñoom dañ ciy gis seen bopp loolu noonu tamit yëpp mu ngi ci biir gaale bi gaale bi daal dafa yaatu mbedd bi mu ngi ci biir gaale bi yow sa xel mu ngi sa biir gaale maanaam instinct bi mu ngi ci biir gaale bi leneen ak leneen ak leneen mu ngi ci biir gaale bi. bon tey li ma lay laaj aussi mooy bandi gaale si ban registre lañ ko mën a casé moom ban genre musique lay def ban genre rap lay def. non ma rab laay def rappeur laa. <laughs> non xam nga am na hardcore am na yeneen branche yow fan ngay situer sa bopp. rab moom branche la ci music tu vois branche la quoi mais tamit rap branche la ci hip hop donc yow tey mënoo ñëw ne da ngay flow yoon bi wala flow yoon bële parce que di nga dem ba benn instant boo xam ne dinga nga sentir leneen parce que ku si nekk xam na ne artiste feeling am lay doxee donc man mënuma ñëwoon case nii en tout cas man rab laay def ce qui est sûr et certain que ni man rappeur la mais tey à tout moment su ma neexee tey après mën naa génn jazz wala def reggae loolu après mën ngeen ko tuddee reggae mën ngeen ko tuddee jazz wala R&B whatever mais l'essentiel à nekk man sama sama sama sama sama njëriñ ci business bi rab la parce que rappeur la kon da ngay ah, parce que euh, on a tendance à voir yenn booy bu ñëwee dañu dugg carrément ci ay guerre de philosophique mm. ay guerre de man li lay def hardcore la affaire yi ba mujj gi mu indi len problème duñu am ben ouverture donc yow à ce que je vois yow donc yow yaa ngi si ouverture d'esprit boo xam ne musique large ngay ngay bëgg a def quoi si carrément xam nga tey comme genre tey mën nga nekk leen quoi mën nga nekk leen mën nga nekk rappeur mais après su ma demee def mbalax waaye ma mbalax waaye ma mbalax maan quoi su ma defee tamit arène bi wooye ma Chris Brown su ma defee reggae wooye ma xama wooye ma reggae man quoi mais genre comme danga naa léegi ah oui rappeur bi kon léegi day reggae rappeur bi kon léegi day mbalax rappeur bi kon léegi day jazz mais base yi mooy rab rappeur la parce que ci lañ ma xamee aussi tamit man foofu laa gën a mënee même su ma defee yeneen dama ko gëstu après mais rap tey moom laa njëkk a avant leneen te rab tey moo lay permetre nga am benn ouverture bi parce que ku si xam na nii rab nekk musique la mais nekkul musique comme les autres musique la ci musique donc rap tay doon na loo xamante ni, nii boo rek genre nga xaw ko maîtriser som ni rek som na la indi opportunité yu bari yo xamné ne ay instrumental ni nii la quoi parce que musique mom technique la rek euh, ok kon ñu ngi fii toujours HLM Paris avec euh, Bandi Gallé mu nekk jeune boo xam ne depuis 2015 mu ngi ci rab bi donc Bandi Gallé tout récemment génne nga benn benn single la ba mën a wax. benn maxi ñu tuddee ko lance donc lu mu mën a wax si maxi boobu ak euh, lan moo wund maxi bi ak lan moo tax nga teg maxi bi ko yeah maxi bi moom. wax dëgg yàlla sax mën naa andi sama maxi maxi Cisco la mooy producteur bi moom sama producteur le manager le jumeau la aussi quoi frère la donc avant ñuy am studio ah, avant ñuy am studio dañ ko yàgg xama nekk ci mu ne ma bandi instant bii nag single lii doy na il faut nga génne benn projet boo xamante ne dafay am cinq titres yaa xam nag noo koy tuddee waaye façon thème yi laa soxla lii ak lii ak lii ak lii laa soxla moom moo teg lépp xam nga man du ma si dara moo teg lépp man dama ñëw après teg affaire yi ñëw studio ak euh, prise moom mu arrangé affaire yooyu noonu xam nga lance-pierre nag mooy benn benn outil boo xamante ne catapulte la boo demee euh, français noonu la koy woowee catapulte xam nga ça permet de catapulter d'une chose vers l'autre maanaam cible lay am genre ñun nag suñu cible mooy public bi li tax ñu cible leen mooy que ni li ñuy génnee message yu ñuy lancer bëgg nañ ku si nekk jot si aussi tamit mu njëriñal leen lool ñoom ñu gis si njëriñ xam nga aussi tamit ku wax artiste wax carrière parce que carrière xam nga des fois da ngay dégg benn artiste am ñoo xamante ne ku si nekk ak li la dugal ci affaire yi am ñoo xamante ne jigéen ñi bës ñi xaalis mais ku si nekk boo atteindre sa objectif bàyyi dama lay give respect mais après carrière gën na yaatu lool xaalis mi ngi ci bës mi ngi ci. jigéen mu ngi ci leneen ak leneen ak leneen mu ngi ci quoi donc carrière gën na yaatu lool donc lu ñuy lancé mooy carrière te lii premier projet la quoi mooy lu ñu njëkk a teg maanaam first teb la xam nga aussi tamit pierre yi mooy sound yi mooy raam yi mooy dal ci biir xelu gars yi di def effet si ñoom quoi. tey boo mu doon tojal max bi. Mhm. donc yan titre ñoo nekk si biir pour gën a mën a inculquer gars yi pour ñu mën a dem découvrir ko. yeah maximum bi titre franchement parler Boko gisé da ngay envie cliquer quoi pour déglu parce que track numéro un bi zombie xam zombie zombie ben track la ni ego trip mais mën ko day wax légendaire lolo waral zombie zombie c'est fictif zombie parce que. tey légende ku si nekk xamoon na Nelson Mandela mais ba tey dañ koy waxtaanee xamoon ngeen Michael Jackson mais ba tey dañ koy waxtaanee c'est parce que dañ fee liggéey loo xamante ne nii tey dañ leen di fàttaliku fu ñu neen Nelson wala Michael wala keneen ak keneen danga naan awee ah respect xam nga deuxième track bi mi ngi tudd jirim jirim ci français mooy orphelin maanaam koo xamante ne dafa teel a ñàkk yaay wala mu teel a ñàkk bàyyi koo xamante ne nii jirim la mais dafa sonn ci biir kër gi parce que tantaam maanaam ki papaam amaat après yaayam da ko sonal xatal ko boobu tamit thème bu intéressant la wax dëgg yàlla Samba dafa bëgg son boobu moom moom da ko même ko tamit dafa coy saan boobu presque gars yi ko bëgg bëri na troisième son bi mi ngi tudd Hero Hero mooy héros quoi mais en anglais laa ko kii Hero Hero benn saanu mbëggeel la boo xamante kooku moom man la début bi genre góor gu nekk xam na ni du da ngay ñëw rek dal ci ki nga bëggoon wala ki nga opté woon am maanaam l'oiseau rare donc Hiro sound la boo xamante ne commencement bi sama jaar-jaar ak xale yu jigéen yi niñ lay bañalee di la def xama di la di la di la poser lapin wu xama duñ la respecté quoi genre parce que xëy na am na lu ñu doon séntu si yow te new fa mais deuxième partie bi da nga daje koo xam ne moo la def Hiro quoi quatrième titre mi ngi tudd Insomniac mo so dégg ko ko sound Youssou Ndour sax sound ko insomniaque moom quelqu'un qui est atténué par l'insomnie xam nga insomniaque benn son la boo xamante ne première partie bi dama ciy wax koo xamante ne bon yitte jamono ji moo ko teree nelaw maanaam pa boo xam ne dépense da sonal euh, ci première partie bi laa wax ñaari thèmes yooyu beneen thème bi mooy que bon Ko xamante ni ni day nelaw ngoon nelaw ngoon moo dem ba sonal ko mënatul nelaw guddi deuxième partie bi ma wax ak euh, ñi nga xamante ne nii réseaux sociaux yi ñoom ñoo leen monopoliser ñoom moo leen monopoliser quoi xam nga dañ ciy nekk nekk nekk nekk ba nga xam dañuy dem ba dañ koy tàmb sax dañuy dem ba dañ koy tàmb bu ñu connecté wul minuit ba ay trois heures duñ nekk même pas sax suñ ko amul dañ koy lijjanti xam nga donc ñooñu loolu loolu laa tënk ci biir Insomniac bu intéressant la nañ ko xool dernier titre bi nag mooy 5 booboy poobar quoi Ego Trip la 100 pour cent am na aussi ay ay clash quoi. léegi lan mooy suite kii bi suite max bi lan la <coughs> donc max bi génn na mu ngi évoluer donc lan mooy suite bi da prévoir def ay spectacle wala. yeah bien sûr bien sûr mais avant spectacle sax am na ay vidéo yu war a génn am na ay vidéo yu war a génn comme Insomniac war nañ ko vidéo ak Jirim yooyu moom war nañ ko vidéo incha allah après ci vacances yi grandes vacances yi. dañuy def benn concert bu mag boo xamante ne HLM pari moo ko moom mënaguma ci yaatal parce que gars ñoo ngi ci réunion yi ñoo ngi ci réunion yi xam nga donc mais daal ñoo ngi waajal lu rëy loo xamante ne HLM Paris daal moo ko moom quoi ko moom quoi. donc euh, balaa ñuy terminer sama sama question bi ma lay bëgg laaj mooy en tant que jeune nga xam ne yaa ngi étudier nekk ci études yi ba pare jaxase koog rab bi. comment tu vis avec ta famille ak ñoom lan lañu lan lañ euh mélange bobu quoi. si si waaw xam nga tay rek dañ na nit ki ak lu mu bëgg boko ko xam nit ki ak lu mu bëgg tay boko ko naré xagn amana té te surtout ñun dañoo nekk ay jeune ay waxambaane yo xamante ne suñuy tànk dëgërul suñuy loxo dëgërul surtout période bi ñu tollu xam nga dañuy foogante ne asamaan genre buy wacc mën nañ ko téye quoi aussi man dama am parents yo xamné ils sont compréhensifs. xama tey man tamit néew ma koo xamante ne ni dama terrible quoi xama nga donc tey su su ma su ma bëggee leen ñoom dañ ma koy dañ ma koy nangul quoi parce que ñoom bañalu ma leen quoi donc méttiwul quoi début bi la xawoon début bi méttiwul woon mais daf leen jaaxal parce que en tant que benn booy bu cool nii xam nga gars yi mosuñu yaakaar ci man rab après bañ demee ba xam ko xam nga amoon na ay polémique mais après bon. loo gis tamit waxtan la après tamit ñom luñu bëgg rek dal leen koy defal mais ñom tamit des fois dañuy xam ki bëgg na li mais dañ ko siy jappalé parce que tamit euh, dom cadeau la quoi bien vrai que ñom ay nawlé lañ mais dom cadeau la tay lu mu bëgg war nga ko si jappalé de telle sorte que bu réussiré mom day nekk sa sax sax yow ci sa bopp donc ñom musul am problème bu rëy quoi xam nga musul am problème bu rëy donc instant bi sante yalla alhamdullah ñong ci ñaan di si nas di si noo ci bon sant yàlla quoi ah, amul benn amul benn problème quoi. Oh, waaw mu doonoon benn fort message de Bandi Galle donc Bandi Galle l'émission tire à sa fin sur Guédiawaye TV Guédiawaye Info donc euh, tey euh, lan nga doon tëjee mooy sa last word en plus aussi en tant que jeune boo xam ne yaa ngi jàng nekk si rab bi en plus euh, ban yan conseil ngay jox jeune jeune HLM Paris ak jeune Guédiawaye euh, en général aussi jeune jeune jeune Sénégal. Sénégal yeah, bon la sa bi mooy que ni bon damay ñëw ci conseil bi mooy que ni tey Sénégal toll na jamono joo xamante ne nii gars yi ñoo ngi roy roy kenn terew ko kenn terew ko mais booy roy da ngay roy les bonnes manières. parce que ku nekk xam na ni fu mu toll nii yéen a ngi dégg ay yenn émission yi daw ci rajo di seetaan ay yenn émission yi si télé yi ñoo ngi ciy wax lenn loo xamante ne nii wala yoo xamante ne nii dangay taf sa gémmiñ ne non du Sénégal te pourtant boo gëstuwee bu baax di nga si teg sa bët jeunes yi nag di leen wax ne xam nga life dafa éphémère c'est du tic au tac nii la rek yàggul quoi donc boo si nekkee nga topp sa jeunesse après mun nga ko rëccu suba donc il faut nga casé wu il faut nga casé wu xam li nga bëgg aussi quoi loolu kese la. loo mënti nekk rek nit ki loo mën a nekk am ci ngëm-ngëm bi xam nga dëggu ci quoi nga franchi xam nga incha allah yàlla dala si jàppale mais tey man ma yenn jeunes yoo xamante ne nii mooy loolu quoi dañoo toog yaa ci defuñ dara abre bëgg bëgg bëgg naan ay dëgg bi nii wala dëgg bi laa affaire noonu wala topp si ay tooxak ak wala affaire noonu loolu bu dee dafa am booy si nekk moom nañ ko bàyyi quoi xam nga c'est valable pour jeunes yu nekk HLM Paris Guédiawaye Galsen ak Galsen ak Afrique sax lay wax quoi parce que tay Afrique ñun dañ dafa am fuñu canaliser quoi occidentaux yi dafa am fuñu canaliser té lool dafa wara dañ quoi ñun dañoo ñun ay noble lañ ñun ay noble lañ ñun africain der bu ñuul donc war nañ xex lu bëre bëre bëre bëri waxuma la pour Sénégal sax mais Afrique dem kanam quoi té ñun jeune ñoko wara job bon li ngay par rapport ak euh, émission bi. seet si la waxtaan par rapport ak sa carrière ak sa maxi bi nga génne. Mm-hmm. waaw yee vraiment satisfaction la quoi aussi kontaan trop parce que mooy loolu yombul benn jeune génnee benn affaire xam nga benn site bu toll géej Guédiawaye info ku nekk xam na lu rëy la ñëw seet si la gaale defal la émission affaire yooyu noonu xam yow di la di la di la di la di bu baax yow mbay di remercier tamit sa équipe bi ñoom békaay yi affaire yooyu noonu xam di remercier tamit HLM Paris parce que franchement ñu ngi siy jàpp mais nag mention spéciale waa banlieue 13 quoi ñi nga xamante ne ñoom début bi ñoo ma gëmoon balaa dara di xew gars yi foofu su ma limee rek damay juum géejawaay kër ñoom ko ñoom Fara ñoom ñëpp dañ ma yàgg gëm quoi ak sama gars yi nekk fii tamit su ma limee damay juum quoi franchement am nañ fi benn gan bu jógee fee bu jógee bu jógee Saint-Louis mama moom nee na mooy manager bi da koo bëgg a nangu ci loxo Ngom ak Cisco quoi <laughs> mais franchement di gërëm di leen di leen di leen di leen shout di leen wax que ni tamit Lanspeer bi ngeen dem gëstu ko ñu ngi siy def bandi gaale bandi gaale D T gaale G A 2 L e nga def Lanspeer Jam Maxi nga fa am 5 titres yi franchement doon na loo xamante ne nii am na flow ram technique skills xam nga gars yi nañ ko dem gëstu en attendant. yenen affaire yi di ñëw quoi inshallah manam vidéo yek ak concert bi ak benen projet parce que li mom du dara sax ay max yi ni mom mooy <laughs> loolu liggéey nañ ko bu yag liggéey nañ tamit lenen mais dafa jodogul quoi. donc merci Bandi Galle donc c'est internet de Guédiawaye donc Guédiawaye info TV tay ñu ngi won fii nii Paris c'est si woon ben jeune bi nga xamné mu ngi dérouler carrière am ñukoy wax Bandi Galle. ñu ñëw seet si woon ko waxtaan ak moom si maxi bi mu génne muy Lance Pierre dem leen xooli ko ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon Mbaye Prési peace